liggéeyuloo euh, deux ans euh, jafe-jafe yi ci fànn yu bëri ñuy dégg financement ak jàppandal ñii ne am nañu ñii ne amuñu euh, yow lan mooy sa xalaat ci seen taxawaay ñoom artistes yi par rapport ak jafe-jafe yi am ci àdduna yëpp depuis depuis plus de deux ans. di ki masawu <coughs> artistes yëpp du musiciens yi rek artistes yëpp. Mhm. lu metti la. matillu aussi artistes yi na ci Afrique yëpp ak ci monde bi mhm. situation bu ñuy dund moon pap trente ans may daw rek mhm. depuis deux ans affaire bi arrêté mhm. comme chaque Sénégalais comme chaque personne sama m'a plongé ma dugal ci benn réflexion reconsidérer dégluwaat sama bopp déglu nit ñi am attention ndax mbir bu yegsee daf la war a jàngal. Mhm. il faut savoir rebondir. Mm. Mm. et je crois que yu bare artistes yi ñu ngi koy def man en ce qui me concerne. Mm-hmm. aujourd'hui je pense que damay bin bin damay bin mm-hmm. c'est-à-dire je fais une petite pause. on verra. mais je fais une petite pause. Mm-hmm. mais mais taxul. Mm-hmm. li nga xam ne mooy sama passion. Mm-hmm. di sama musique liggéey naa ci lu bare. su ma nee pause mooy peut-être ça va être difficile dans les jours à venir de me voir ouais, monter sur scène. Mm -hmm. pour le moment c'est en stand mais bàyyi woo comme on a pu quand même. non bàyyiwuma xam nga passion doo ko bàyyi mais j'ai une pause quand même c'est la réalité. dafa ajandi. waaw maanaam nii grand bal du am. Mm-hmm. Euh, fu mu ne. yàlla dîner de gala yeeg yooyu fu mu ne pose après lu ci yokku te am ci importance aussi moom mooy mm-hmm. j'ai pu faire trois albums. Mm-hmm. <coughs> ci ñaari at yi. yooyu def na ba pare yooyu dina génn dina continuer accompagner mhm. loolu moom c'est une réalité mhm. super étoile nga ci profito di leen nuyu di leen baalu àq di leen baal àq ci weer wi nga xam ne moom la ñu génn ak bés bi ñu ne mhm. euh, ñi ngi ci projet boo xamee ni que comédie musicale la ah, bu am dimension mondiale boo xam ne ñu ciy liggéey donc euh, liggéey bi xëy na peut-être visibilité bi walla taxaw di ko def xam naa ni dina xaw a jafe léegi nii mais mi ngi dem ci suuf yora des chansons qui vont sortir ce projet là bi ñuy liggéey ak Super Étoile muy un projet boo xam ne am naa ci yaakaar trop mhm. dimension mondiale basé à partir si mën naa leen wax sax mi ngi tudd ëttu Birima mhm. loo xam ne que aussi dañuy xaar mhm. toujours comme ça nag yooyu yëpp dina mën a kii ñu xaw a dal xaw a dal déglu liggéey ci li nga xame ni que bokk na ci li ma gën a euh, soxal jàppale le président de la république si emploi des jeunes bi nga xamee ci lañ nekk ba ci sama waar ba mu mat